waaye bu ñu nee ndakaaru nag xool bis bi nga xam ne nag Serigne Saliou ne woon ndakaaru def leen ko muy seen bis muy julli géej gi ginnaaw bu nuyoo muy Serigne Babacar Mbaye yor mboolem organisation nga xamee ko ca Masalikul naan ak feneen foo dégg lu mel nii ci Serigne Touba moom la ñuy jiital ci loolu ndax expérience am ak it euh, bëggam ak ngëm-ngëmam ak conviction bu mu ci am moom la ñu fas yéenee waxtaanal sëñ Babacar mbay noo ngi lay sëñ Maam Mor ñu ngi lay fay bu baax a baax baax. Euh, sëñ Babacar euh, lu mat ay at a ngi nii euh, booba ñun ay tout tànk lan ba fekk si leen ci ngeen di def lii ci organisation bi ana loonu ci mën a indil ak lan moo ci yokk ak lan nga xamante nii xalaat nga ko ci ne yokk na ci ba taalibe yi mën cee gis bopp ci seen bopp ci organisation bi ndax julli géej gi ginnaaw suba la ak jàmm waaye suba mooy ngontum Cheikh Ibrahima Fall bi ana noonu ko mën a définir. waaw jërëjëf sëñ Mamor ginnaaw bu ñu santee sunu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di sant bu baax seexul Khadim tey ñaan ki ko toggal ci lalam bi di Cheikh Muntaha ibnu Cheikh Mouhamadoul Bachir suñu borom dala ko fee yàggal lool te wéral ko ba lépp luy bëggam mag yéeneem yàlla yeggal ko na ma ko bëggee waaye di ko ñaan njabootu Cheikhul Khadim géppit nag wax dëgg yàlla waaye di ko ñaan bépp ku mbokkal islaam bi yàlla yàggal la fi lool te wéral la yàgg ca nga jaboote ba boo liggéey nga teere fi kanamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ngërëm Euh, di jaajëfal bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin mi nga wax ne suba mooy ngontam mi di ko ñaan ñaanal xalifaam sëñ Cheikh jëmb yàlla dolli ko fay yàggal lool te wéral ko moom it ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp sëñ maam wax nga dëgg bés bi ren ñu ngi ci ñaar fukk ak ñeent ñu koy def euh, euh, xale bu ci juddoon ba màgg mën naa samp kër bu dee jigéen sëy na ba ami doom kon kuréel gi màgg na luy màgg nag ba léegi ñu koy def mu mel nii mooy barke dugg na ca barke ba nag du kenn kenn ku ki ko moom muy seexul Cheikhul Khadim Khadimul Moustapha moo tax bis bi amul turandoo turandoom kenn képp la muy seexul Cheikhul Khadim Khadimul Moustapha ndax jëf ji moom rek ko defoon jàkkay géej dégguñu ko dans l'histoire de l'humanité ku fu mu am ak ku ko def waaw taxaw ci mbeex mi te juddoo bawal yaroo bawal màgge bawal gisoo géej ba le 21 septembre 1895 ñu la cay yóbbu nga boole tisbaar ja tàkku tàkkusaan ja foofee ca ndox ma julli ko fa ndax sa pas-pas ci sunu borom loolu lañ mës sa jàng ko ko def te jàpp ñu wala a def a tegu ci géej loolu la yàlla dogal ndax bawol ga mu juddoo géej dafa amul ba le 10 août bi ñu koy jëlee Mbàkke Baar di ko exilé mu jaar jeewal ñëw Louga ba mu demee Ndar amul jotuk àgg ca géej ga ndax prisonnier la woon ba na mu nekkee woon ca bureau ba Ndar ba def fa ñaar rakkam yu pësteefu yooyu loolu la yàlla dogal amul jotul amul jotul dem géej di ko xool ba yàlla dogal ñu indi ko teg ko ci saxaar la jaar ñëw fa mu fépp teg si bëtam ci géej ñëwu fi bu ñu indi ko Dakar ak li xew Dakar lépp nga xamante ni duñ ko bëgg sax nettali ndax moom daanee bu ko fàttali ko bëgg taal jaar kon loolu nga xamante bi suñu borom def na ko keroog bi nga xamante mi ngi teg tànkam ci waaxu Moussa Sir gi muy ci mool 1 bii nga xamante fi la embarqué war a dugg ci gaal gi muy ville de Pernambouc pour dem keroog la mu Bàmba ma sa tegu ci géej ci zaayir muy lu ne làññ loo xamante di ndox mu fees dal ci ku juddoo bawal xamoo luy géej kon bu sa borom dawalee sa pas-pas yàlla tax mu jaral la nga wàcc ci mbeex mi ndax bañ a faat waxtu borom ndax da nga ne sama bakkan bii jaralu ma di faat waxtu suñu borom loolee war na sa koo def ay jàngat ay jàngat loolu kuy dundee lislaam ku ne war ngaa bàyyi xel jëf jooju rawatina taalibe murit fan la sëñ Bàmba tegoon julli ba ñu koy màggal tey kon ju jaadu ci murit ak pas-pas bi nga war a am waxtu julli jot nga dégg ko te sa xel demul ca la sëñ Abdu Xudoos mu maam Cerno Birahim waxoon yàlla yàlla doon leeram ne waxtu ñu ne Allaahu akbar ca jàkka ja mu ne dara baaxatul. dara dara dara lu baax julli ji rek loolu si bu xaar daan wax. kon loolu nag boo amee ñu ci sant yàlla yàlla dimbali ñu ci kilifa goo xamante ni ëttub lislaam moo ca man ca loola kon bu ñu koy màggalal bés bi bés la boo xamante ni benn bés talu ni te benn bés balu ni moo taxoon sëñ soxna may waxoon ñu ne sëñ bu xaar sama mag ju baax ji de moom waxoon li gën a saf xorom ci jëfi sëñ bi de dégguma kenn ku ko wax muy lan muy julli géej gi ma ne ma ne ko géej saf xorom moo tax nii rek la war a mën a mel Mamor lii daal muy bis bi nag ñu ne ci waajtaay wi bu baax ànd kook le président Cheikh Makhtar Diouf mu ànd koog toute la commission d'organisation ak tout le kuréel Euh, ñu koy sant di ko gërëm ci taxawaayam baax a baax waaye di santit ñi ko jàppale ndax maxtaan rek mënu dara waaw dañ ko jàppale ba mu mën a dem ci wàllu góor ak jigéen ca wàllu soxna soxna Sodou Khouma taxaw fële moom it ànd ak istafam boo xamante bi ay amazon daa leen tuddee ndax seen pëstéef ak seen soñ ci liggéey bi ëpp na compétence li ci nekk sax ñoom mën na si ko wax day xanaa day ndimbalu sa borom rek waaw nee naa ko doo doo mën a féex ndax soxna may moo ne woon maa jiite na Sodou Khouma topp ci man doomi sëñ Bàmba nag ku ko deuxième war ngaa sonn waaw loolu la loolu la yàlla dogal kon na nga gën a lu baax a baax liggéey baa ngi nii équipe boobu ñoo taxaw tey nekk ci waajtaay bi 24e édition bi gis nga implantation yaa ngi nii ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci dox bu baax a baax a baax ñu ngi ci taxaw taxawaay bi di sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ci taxawaay bi ak ni mu mel. waaw Baye Babacar eh, yar ak teggin soxla nañ ko fii ndax lu ñuy bañ ca Touba rek ñu ngi koy bañ ci barab bi. sëñ Mamour dëgg la dégg naa say plateau nga di ko wax waaye loolu mooy dëgg fii Touba la Serigne Touba dafa wax ne waj al bu yoote kullaha masajida sama bépp barab jàkka la kon war ma joo war a indi ci jàkka ba joxe fa sa waxtu wi ak say farata moom nga war a indi ci bépp barabu Sëriñ Tuubaa jàkk noo fay def da ngay jàpp ba set doog faa dugg tënk say cër yaru julli ànd ak dal mu bokk ci farata yi kon loolu yi dañu sàkku ci ku fi ñëw ngeen di yar boobu ak dal googu ndax lii xam dana fi rot ci xéewal nga man koo sàkku taataan ko ci bés bi ngir yàlla man na koo defal lii daal muy bés bi ñu ciy sant ñëpp te di ci woo ñëpp nag ñëpp rawatina nag suñuy dëkkandoo muy waa HLM Grand Médine ak Diamalaye ak waa Parcelles Assainies nga xamante bi ñoom ñoo moom bi di woo la communauté Layène nga xamante bi ñooy suñuy dëkkandoo ci liggéey bi di ko dale Cheikh Abdoulaye Thiaw Laye mi kilifa ga ak ko mu jaboote ñëpp ubbi kër miin ko sax ñoom ubbi kër yi waa HLM Jàmmalaay ak HLM Grand Médine ak waa Parcelles min nañ ko min nañ ko min nañ ko ndax màggal seen màggal da nga gis ñoo xamante bi ci màggal gi rek la ñuy ami gan yuy sottiku di ñëw bu màggal gi jotee dañuy gar seen gan dañuy ñëw ñooy dañuy rey gàtt ñii di rey nag ñii di lu ne la ñuy def ci bis bi lu ne lu ne am na ñoo xamante bi dañuy wax ne bés bi ci la ñuy am seen gan yi ak seen bokk yëpp la ñuy daje nga xam du ñu sax amuñ sax jotuñu ñoo la wala ñu kuréel la xam leen waaye dañoo bokk ci magal gi léegi ba bu jotee ña ngay rey seen nag def seen i bernde ngir liggéey bi moo toll noonu bés moo toll noonu yitte ji moo toll noonu. presse taxaw nañ ci vraiment. presse kenn leen a fay ndax presse ñoo tax ku ne xam bés bi ku ne yëg ko ndax bu doon ak presse dara dox la presse mooy loo xamante bi mooy lu incontournable ci événement. ku bëgg sa mbir dox faam nga takkook presse ndax presse mooy ki nga xamante bi mooy ki lay yëgle mooy ki lay wane mooy ki lay xamle mbir lu mu rëy rëy rëy te yëgle wuñ ko wane wuñ ko xamee su ko doo ci mën a am ndam